sur internet. non mais les filles sur internet par exemple toi la moi quoi. yow man la. est-ce que booy dox ci mbedd mi wala mu ne la seen gën ni ngay mel. lu loolu. les filles sur internet sur Instagram toutes les filles du Sénégal sont belles. <laughs> mais toutes les femmes sont belles. non non non non non. si. non non toutes les femmes du monde sont am na ñoo xamante ne boo gisee seen photo de profil nii nga gis seen photo de profil nga xool ko boo leen ko mëntee sànn ko doo ko xamee. waaw nit ku nekk war ngaa mën a defaru. noo loo la laaj yow yaay ñëw di attaqué xale jigéen di fii waaw d'accord amul benn problème alors dañu jàll xool sa clip bi nga xamante ni moom nga reprendre at euh, son dib bi mm-hmm. alors moom la Dip waaw mais <laughs> moom Balla alias Dip non man man lii mooy parodie man je fais des parodies ah. reprendre naa Michael Jackson gars yi partagé ko ba Michael Jackson gis ko discutons discutons <laughs> c'est la première fois que ma gis nga reprendre at benn son pourquoi Dip non j'ai repris Nit Dof. reprendre nga Nit ah bon. anyway. ragal du ragal je l'ai je parle de l'actualité là là là maintenant. waaw tey Nit Dof doo comparer génération Nit Dof ak génération wu Dip. ah mais ah, non il ne boxe pas. Nit Dof il a sorti benn mm. album cette année. mais quand je dis quand je dis tu compares pas les deux mm-hmm. c'est parce que tey jii. Nit Dof moo la njëkk ci rap waaw wala déet. waaw mais tey sooy def comparaison tey suñu comparaison tey on parle de Ngaaka Blindé on tu comprends loolu c'est la nouvelle génération. je parle de la nouvelle génération nouvelle génération bi nga xamante ne dañoo exploser aaru mbedd. Uh-huh. génnee ci aaru mbedd. Uh-huh. nit dof c'est le rescapé des old school. exactement maanaam moom dafa am longévité. Uh-huh. maanaam dafa bëreeg ay magam. ñëw di bëreeg xale yi. loolu mooy longévité. ci ci ci carrière. xam nga ñu def ñi ñi ñi daan rabanool yëpp ñëpp bàyyi nañ. donc tey lan moo fi nekk Ngaaka Blindé moo fi nekk. Omzo Dollar. Dip tu vois. sàmba pause yi ñoo ñoo fi nekk. exactement mais li dof li mi ngi mi mi ngi ci lancé bi. waaw léegi da ngay dem déjà. Mhm. tu vas me répondre déjà ci li ma la wax. le pourquoi. Mhm. le pourquoi nga choisir di ci nouvelle génération bi reprendre la vidéo te pourtant ci diggante bi. Samba Peuzzi génnee na fi vidéo non non mais c'est mais mais c'est la. King Baba bi ñëw na defoo ci challenge. non King Baba King Baba dafa King Baba defagul vidéo. mais def nañu ñëpp ñu ngi doon def challenge bi su TikTok. non yaa ngi TikTok maa ngi TikTok. vidéo bi. yow kii dina ma. kii ma fa di mujj da ngaa encaissé kii kii fii ma la de. déjà kii kii eh. non dañuy waxtaan eh, eh, yow yow yow mii yow eh. non on eh, discute noppil noppil. on discute parce sur internet polémique yaa ngi ne wax waxi 10 millions bi mu dépensé si clip bi te moom mii def na clip wa rabbul kaabari clip bi maa jënd sama café Touba waaw maa jënd sama café Touba fay fay ku nekk ñaata luy sama échelle bi 1000 francs ah xale jigéen ni ñu sol da nga jënd robe bi corde man maa ko jënd mètre 400 corde yi maa ko jënd mètre 400 ma jënd ji 8 8 8 kii la lu mu tudd 8 8 mètre couronne bi nekk fii sama doom moo doon anniversaire couronne bii nii ah ma dencoon ko Ah, heureusement ma denc ko. lii dañ ma ko mayoon ñawal. ma ah, maa jënd pétrole 300 barki alxuraan pétrole maa ko jëndee 300 <laughs> matt matt maa jënd mat 800 man. Hmm. donc clip bi. léegi xale jigéen yi déjà dañoo sol yére yom te dañu ko nuroowaale sax di ko doon ko jënd. xale jigéen yi sama ñaari xale jigéen la. kenn gi sama rakku jabar sa ñaari xale jigéen moom mooy lan loolu. kenn gi sama rakku jabar la Fatia. keneen kii yi gis féete nii sama rakku jabar la. waaw kee sama ginnaaw kuñ la dëkk. Euh, ñoom ñoo ñu jàppale ñu gëlëm yi booy yëpp instant ils sont en réanimation. réanimation ndax saxaar si ils sont tous en réanimation. ay clip bi ñi ci nekkoon ñëpp a feebar instant bi. léegi lu la taxawal. kan yow lu tax feebar non man damaa naan glo kii du mu tudd meew bu baax. léegi yow da yow da ngaa doomu jàmbur yi def sa clip yow nga wér ñoom ñu feebar. non mais aar la mais gisoo saxaar bi xoolal xoolal bi. Hmm. xoolal fumier bi. ah xoolal fumier. waaw léegi booy ils ont absorbé ñaata nga encaissé parce que gis naa dip. jëlaat sa vidéo bi riposte ko partagé ko. mais man def naa yaa ngi fi maa ngi fi man def naa vidéo Michael Jackson jël ko jël ko jël ko posté waat ko. waaw mais du du benn. Michael Jackson Michael Jackson tu parles de Michael Jackson. jël naa vidéo Michael Jackson kii ko yow tu es en train de promouvoir l'album de Dip. def naa vidéo def naa vidéo nu mu tudd euh, Sadio Mané kii ko. yow yow yow bàyyi li nga mel li nga encaissé wax ko. bàyyi li nga mel ne yóbbu li nga encaissé wax ko. yóbbu ma fële. <laughs> alors ñu jàll ci beneen vidéo d' actualité bi nga xamante ni ah du vidéo sax vidéo d' actualité la sa ay son d' lan moo xew tey depuis ce matin sur le net ci mbalax mi. mais ci rab dañuy jàll ci mbalax bi. mais mais mais li ma gis tey. Mhm. ci histoire histoire musique musique Sénégal Sénégal peut-être am na ñu ko yëgul. Mhm. mais lu doy waar moo xew tey. lu bizarre lu bizarre. lu koy ñaari artistes yoo xamante ne. Mhm. ay jeunes talent lañ. Mhm. du ma sax jeune talent ils sont prouvés. Mhm. mais Wally Seck. ak Sidi Diop. dañoo génneendoo album dañoo génneendoo album tey laaj ma albumu Wally nu mu tudd. albumu Wally bi nu mu tudd. albumu Wally mi ngi tudd xippi. xippi albumu. Euh, sii di mi ngi tudd naan. albumu Sidi Diop mi ngi tudd gis naa. pardon. gis naa mais li ma jaaxal xippee gis naa lépp ci bët la. non mais attends y' a un problème sànq dama gis affaire ma ne non y' a un problème là là y' a mën naa d' accord jour génn album. Mhm. parce que Samba Poésie ak ak Ngaaka Blindé benn jour la ñu rawanteewoon. Mhm. mais tey seen titre album yi kii tudd xippi kii tudd gis naa. Mhm. mu mel ne benn réponse la. exactement kan moo njëkk a génnee bosam. waaye moo njëkk annoncé. dafa annoncé ci suba. Mhm. génne. Mhm. Sidi Diop annoncé génne. léegi xam nga lan la ñuy def. lu ci gën a garaaw. Ah. li ci gën a garaaw. Mhm. li ci gën a doy waar. li gën a doy waar. li ma gën a jaaxal. mooy dañoo bokk même yeneen xam nga yaa yaa may xas ci kóofa. Wally Seck ak Sidi Diop dañoo kóofa. dañoo cover même son wu Youssou Ndour. Hmm, d'accord. même son bi la ñu jël maanaam kii da ko way kii wayaat ko. ku ci dëkk way sa morom. xaw ma xaw ma. waaw léegi déjà balaa ñuy avancer maa ngi gis mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi commentaire ci sànq li doon wax ci Dip ak euh, Ngaaka il faut nga dem xool loolu. xam nga euh, Dip Doundou Guiss et Ngaaka Blindé actuellement. c'est mm-hmm. comme le Game of Thrones le trône de fer. le trône de fer le nord et le sud qui se disputent le trône. Mhm. c'est Balla Gaye et Modou Lo qui se le tiit de roi des arènes. Mhm. loolu mooy neexal game bi. exactement tey dip am na un million de vues. ngaa ko bëggee bu génnee suba al kii ñaata million lay mm. foofu mooy guerre bi. Uh-huh. est-ce que ngaa ko bëggee du ñëw ne. guerre daal sur le net le surnom. sur le net maanaam les chiffres. les chiffres ok de chiffres. ok comme armement ni ñu koy defee kii ne def naa. temps ci bomb def naa ci ñaata milliards. Mhm. kii danaan sama vidéo def na benn def na benn def na ñaata millions de vues. Mhm. c' est la guerre des ci ci streaming yi man lañ gën a déglu man lañ ci parce que yooyu la leen gars yi di toppee. exactement yooyu moo tax ñuy signé ay sponsor mhm. Aïcha xoolal li nga xamante ni mooy commentaire yi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngi nii ah. Euh, mais borom buun sa <laughs> tur bi yi <laughs> nee na borom buun sa tur bi garaaw na de borom buun mais man maay borom buun hmm. ah, kii mu ne mm-hmm. eh, Thierno Bab Galla ba mii lu muy wax bul sotee commentaire yi de na nga leen lire non non sotee wu ma mi ngi na nga leen lire mais tatira <laughs> Tata ñi ay kër rek lañ def. mais damaa bëgg lépp leer en fait. man dama fi ñëw juste pour leeral lépp ay kër rek lañ fi def. wóor na sànq gisoon naa ay commentaires yu bind de. la vidéo de Nit Dof s'il te plaît gis nga la vidéo de Nit Dof def naa vidéo ko ba Nit Dof. ok mooy ragal du jéggi raay. pii pii kay ragal du jéggi mais ragal du jéggi raay maa ko moom man maa dëkk Thiès. benn dëkk ñaari gars man bi ma demee supermarché bi nii takk chaîne bi da ngeen fàtte vidéo boobu takk dugal bi nii nii nii. man maa ko defoon yow buun dafa am raay. buun am na raay. avant ah. Fass Mbao avant Fass Mbao. buun am na nga wax mais waxoo buun biir buun amul raay buun am na raay. Thiès moo fi am ñaari raay Fass Mbao balaa ngaa dem buun am na raay les <laughs> ah, na lépp nice nee na nañ ko may vidéo nit dof ma ko kóoba. naa la nga mhm. ñëw may. Mhm. tatira mais tatira ñii ay kër lañ jox euh, yaa ma gën a nëw tatira. non dafa neex yaa daax kala kala gay <laughs> mais Tati sans oublier que ligne bi tamit ci lañ bokk de. Tati la mën nañu woote au 88 628 14 13. 88 628 14 13 ngeen woote wax seen xalaat ci débat bi et surtout <coughs> ngeen profitoo gagné ci cadeau yi nekk sama ginnaaw. Tati la waaw. Tatira dafa am lu am tey maa ngi leen koy wax senegal Ndiaye Macky Sall président Macky Sall. Mm. Antoine Félix Diome. Mm. nañ jóg. nañ jóg def la. ci Wally Seck ak Sidi Diop. ah ñun moom léegi lu tax ñuy jóg ci Wally Seck ak Sidi Diop. maa ngi leen koy wax. ana gouvernement bi yéen a ngi décrété couvre-feu mais décrété ñaari booy yi arrêté seen album bi. lu tax. parce que Wally Seck ak Sidi Diop mënuñu génneendoo album même jour. Mhm. jël bu ko teg misère bu Youssou Ndour déglul bu baax la may wax. bu ko teg misère bu Youssou Ndour Wally Seck way ko. Mhm. Sidi Diop way ko. Mhm. donc y a ils ils sont dans une bataille médiatique boo xamante ne kenn mënu la wax nu mu doon. Mhm. mais est-ce que bataille boobu tamit war naa mën a am seen diggante ñaar ñoom <coughs> selon toi. mais mais man de Sénégal lay wax instant bii. Mhm. cest à boo mu bëggee weddi nag mooy yow da ngay bëgg a raxasu ci mbir mi. mais boo ma bëggee weddi boo ma bëggee weddi. Ah. actuellement Wally Seck ak Sidi Diop. Uh-huh. waxuma dañoo xuloo de. mais côté musical y a un conflit gigantesque. mais dama ne est-ce que conflit en sachant nga xam seen jaar-jaar ñoom ñaar est-ce que conflit war naa mën a am ci diggante ñaar ñooñu. mais kii génnee album. ba tey bu tudd xippi. kii tudd nekk gis naa xippil. tontu wooba xippil xippil. xippi naa te gis naa la. donc c'est le champ lexical. Mhm, c'est le même champ lexical. loolu tubaab wax champ lexical xam naa yaa ma champ lexical ma la buun. Mhm. puut. Mhm. Tattaguine mhm. ay champs lexical lañ ñoo bokk. c'est pas péjoratif. Mhm. ñoo bokk. dëgg la xam nga donc tey jii Wally Seck ak Sidi Diop actuellement. am na lu xew lu garaaw ci YouTube bi boo leen demee. yaa album Wally Seck laa est là album Sidi Diop il est là. Sidi Diop cover euh, Wally euh, bu ko teg misère bu Youssou Ndour xam bu ko teg misère. xam nga way boobu xam naa way boobu kay bu baax yow bu ko teg misère dem na dem dem na dem ba mu yàgg may bëgg a dem na dem dem na dem ba mu yàgg wàcceel wàcceel wàcceel wàcce ko sarax bi ngir yàlla wàcce ko wàcce ci rabu di bi dabul dugg ci yombul de waaw yemal foofu léegi li ma la tontu li ma la laaj tontu ma ci dama ne est-ce que guerre war naa mën a am entre Sidi Diop ak Wally Seck ak fi ñu jugee. xam nga Tatira da xale. amul da xale de mais li ma la wax dama bëgg nga tontu ci. déglu ma ma ñëw. ah xale laa de waaye la musique la musique a toujours créé les plus grandes rivalités au monde. Mhm. xam nga Tupac. Mhm. ak Biggie. Mhm. xam nga Démix ak Jarul. yaa ngi dégg. xam nga Bibson ak Fata. dama lay wax ni ay guerre yu gën a metti ñaa mhm. ngi dégg mhm. jant bi rapajo loolu xaw ma leen Youssou Ndour Thione Seck mhm. doo ko weddi ay ay rival lañ weddi ma ko Bassa Real yaa ngi dégg mais nag léegi nag fa yàlla li ngay comparé c'est incomparable parce que li ngay comparé ak ñaar yi ma la question yi ma la posé mais pourquoi ñoom ñaar seen album yi génn noonu même jour à la base disons pourquoi ñoom ñaar seen album génnoonoo même jour. mais c'est la pourquoi ñoom ñaar kii tudd xippi kii tudd gis na pourquoi cette coïncidence mënul dugg sama bopp cette coïncidence. je ah. peux pas l'avaler mënul dugg sama bopp. mais dama ne est-ce que war naa eh. mën a am waaw wala déet loolu da nga ma cee war a tontu yow. kandi expert li wéy yaay expert bi. Wally Seck. am on commence par le début on commence par le début <coughs> tey Wally Seck. Mhm. daanaka au début début carrière wu euh, Sidi Diop. waaw jàpp moo ci jàppoon waaw wala déet loolu ñëpp teg nañ ci seen bët. nekk rakam.